monsieur le président je ngi euh, secrétaire général monsieur le ministre du transport aérien Monsieur le ministre des institutions Monsieur le directeur du BILCE, Monsieur le collaborateur et technicien yi monsieur le ministre député diaspora de l'Europe du Sud monsieur le ministre li ñuy wax ci compagnie bi dafa am ci son ñun ñëpp ay sénégalais lan te bu nu sañoon lu Sénégal créer dafa war a dox suñu gisee nag ay def bu ñu ko waxee dañu leen war a dégg déglu te loolu ngeen kool nan ngeen ko mën a saafara ba loolu dootu am tardement yi métti na de trop de trop bu ñu la ci wax rek bàyyi nañ ci dara te yeneen compagnie yi ñu ngi fi di ñëw te duñ ci tardé te ñoom boo tardee sax yeneen compagnie yi dañ lay dañ lay jël en charge

monsieur le ministre euh, air yi ci bari boo ci duggee dañ lay may ñett ñaari 23 kilos 23 23 may la 10 kilo saag amee air Sénégal war na mën a def lu mel noonu te air Sénégal comme moom air day doog a judd euh, demagul fe sori bareegul bareegul ay avion yu bari dafa waroon jéem a xam ne dugg na ci marché boo xam ne bi marché bu mag la te ay compagnie yu mag la fa fekk yoo xam ne ay centaine d' avion lañu yor te moom yoragul lu bari mu jéem a xool biir yi nan la ko mën a wàññee ba mu gën a yomb si ko fee nit ñi gën ko mën mu respecté itam heure yi muy dem loolu lu am solo la monsieur le ministre euh, prix yi seer na ñaareel ba aéroport bi ñu am muy aéroport boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ci sant le président Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy mooy bâtisseur de l' Afrique mooy bâtisseur bi Sénégal andi woon fi avion aéroport bi ñu def ko fi loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm ndax réew tam day dox day dox kon loolu lu mat lu mat a leer la monsieur le ministre am na sénégalais yoo xam ne ba démb rek ci mujj ñoo xam ne ci air Maroc lañ demoon ba léegi seen i bee Maroc xam nga ne ak Covid bu bees bi tëj nañu te loolu yëpp ngeen ko war a sóoraale xool nan ngeen xam nañ ne ay privé lañu waaye état ak war nañoo mën a waxtaan ba yooyu solution yëpp ñu réglé ko ñi nga xam ne seen bee yi ñu ngi fi tam waratu yëpp ñoo xam ne Covid bu njëkk ba ba léegi seen i bee jotagu jotaguñ xaalis boobu waxoon naa la ko ci commission yi loolu itam lu matoon a taxaw la ndax wax dëgg yàlla toog fii yor sa bee adhéré war a retour dellu ci sa liggéey ñu ne la ñu ne la ñu ne ñu ne la ak bis bu Covid bi jeexee daañu la delloo sa biir Covid bi jeex delloo wuñ la sa biir nga nga daggaat biir dem topp ci gannaaw ay ay ñoo xam ne ñoo ëpp xaalis fuuf ëpp lay moyen te duñ la delloo sa xaalis xam nga ne loolu loolu itam yéen état bi war ngeen mën a jàppale citoyen Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci biti te am problème yooyu euh, monsieur le ministre yaa ngi sa sa sa sa beneen ministre muy ministre de euh, ministre de de santé lu jëm ci Covid bi am na waree bu bees bu bu génn te loolu baa du impacté ci tourisme bi nga xam ne bi mooy tourisme bi nga xam ne que daanaka fi seen tourisme li ci ëpp mooy hiver bi tubaab yi màggat yi daw ñëw fii làqatu suuf baa du impacté ci hôtel yi indi leen ay ay difficulté ci jafe-jafe loolu it lu mat a xalaat la yéen waa Afrique yéen gouvernement africain yi da a war a solidarité àndandoo nekk benn bokk takkandoo wenn say am na yoo ne bu ngeen toppee Occident yi daañu leen lor te lor bañ leen di lor itam ñoom seen i intérêt rek la ñu seeni intérêt la ñuy seet intérêt yooyu ñuy seet da ngeen war di taxaw toujours am un leader taxaw comme ni comité européen bi di taxaw ngeen di taxaw li ngeen war di wax ngeen toog waxtaane ko téye ko tënk ko parce que ci Covid 19 bii euh, li ñu leen jox ci ay milliards on est jox nañ leen jox nañ leen 30 milliards lañ boole euh, Afrique yëpp 30 milliards de dollars 30 milliards de dollars ñee am 600 et quelques milliards de dollars loolu lu ngeen war a revendiquer la waxtaan ci ak ñi nga xam ne bi ñooy ñooy ñooy séddale xaalis ñu jox leen lii seen ak ak seen yelleef monsieur le ministre ma kuy liggéey te ko fa nga liggéey kenn du ko ne jaaraama kenn du ko ne jaaraama dañu ngi la wax gën a la góorgóorlu ki la ki la ki ki la la sénégal yoo ko tànn muy président de la république mu am ci yow confiance ba tànn la kon li ñu lay wax na nga ko déglu ak ñaari ak ñaari nopp bu mu dugg ci nopp bi jàll jëbale déglu ko ak xel te ko dégloo ba pare nga xool yow directeur Air Sénégal bi bu dee yaa ngi ci place bi nga nga jéem a defaraat xoolaat sa agent yi xoolaat sa avion yi xoolaat sa compagnie bi ni ñuy liggéeye bu ngeen ko mënee changé defaraat bu ko maa ngi nuyu itam suñu collègue Mame Diop di ko sant di ko gërëm maam Diop fa nga jëm yàlla fa yiw yàlla jëm merci beaucoup wasalaamaaleykum wa